here hi. in Senegambia. Can you guys say hi to Gambia? Oh, uh, Baobab Baobab Baobab. Okay, my name is Sources from Nigeria. She's from Nigeria. Yeah. Nigeria. Yeah, so they like, how is, how is the situation in Nigeria? Gambia? Ah, Nigeria is fine. It's cool. Oh, but Gambia so is... Gambia, Gambia is Gambia is nice, Sha. It's a nice country. Well, I said, and nice country. It's peaceful, but not that peaceful. But it's okay. It's nice. So, what oh, did you get enjoy the most? you saying Not that peaceful. Oh, I enjoy the beach, the peacefulness, the the kind Quietness. of people, the color, and in the midst of people you see, or Igbo, you see different kind of people. You get to react to different kind of people. Yeah, yeah, it's nice. Um, do you have a favorite food in Gambia right now? No, I eat my Nigeria food, which with uh, this uh, fruit that uh, normally have uh, seed. But for me, I like fufu. Fufu is my favorite. Uh, so that is, I don't know There's if there is fufu. Yeah, yeah, there is fufu. But cook. yeah, Gambians why? cook fufu now. Yeah, the Gambians uh, use uh, yeah they cook fufu. Yeah. yeah, fufu is nice. All right, thank you guys so much. Thank you. Stay thank tuned you on West Gambia Talents TV. Sunday Beat Live. Still, we have a host here, Fatu Kanye. Kadi Sanyang, you can join us here. Kadi is at the camera. Um, the journalist is at camera. Small journalist, camera. But Fatou Kandji mën nga nuyo gaay ñu déggal la fi ci Gambian Talents TV. alaykum suñ ah, suma suma nit ñi dal ma leen di nuyu. hello guys. <laughs> kadi mu leen di hello de ah, ñu ngi ni fii via beach you know ñu ñoo fi tey kon ñu ko den def am um, last um, last uh, Sunday wat nañ fi pour waxtaan ak nit ñi xam nga about xam nga beach bi niñ ko dee gisee xam nga lutani ñu beach why do you like coming to the beach and stuff like that you know sot moo la tee ñu nekk fii waaye fii moom man foog ne fii moo daaxa file nag fajaara parce dafa fees keroog demoon nañ ni te fi mom ah moy loolu kadi janga no jamba faral ne jena jena mo siata fajaara te mala mo no mala seno jam mol mol jana like dina defana de jangan like ba kale ban mol kontonga assalamu alaikum baadi la tol mil ben jube kam biyo felenti ngal ye baadala janna to futa jambi sonde bi ka futa mol ma ke nyininka ikay sonde bi ke ani dol fana bi jene be tabirol dol be ku kan fengo sifa be wolbe ke kan bi yala be tiata la fana weekend sometimes in family na ali si badala ali enjoy ya jel fatma ran kam in foye yala bi ta bota nan mbadi mu ntana to kombo jambu tunga mbadi mu nan yala bati ye <laughs> bi jodo mo sembio ke yuswa ba bi elun tongo le sodo jande elun tambala sodo je ka mi sanya mbaa sempan madam fo kala ngol man yenyinin ka bijo fo e sondele fanan kana ban fo bilan dol fane na folo di jang bijo to jang ne bulale fane do monim fo mol yemi be jube ka um, ye hay ya wolem ke um fon ke ni mole ta kacha bawo xam nga ni mu entertainment pole rek amol entertain ni mole kacha xam nga yus baba yeah still sunday beach live um dañuy ñew dem ci interviews dañuy interview ah, ñu gëna xam dal How do the Gambians spend the summer? Taylor Bugaham, Gambians girls in the Spanish summer, Gambian boys in the Spanish summer. Today, maybe then i some freestyle zone just like the other one. Kids are mad here. Sunday big live. Sunday, may big up not. Mm. I'm live. Yeah, I'm live. Yeah. You're rap ang wala. Yeah. Nang rap. Yeah. Mga rap. Yeah. Jomo flu. ama blank one bigger than King Kong, young trap cash my kingdom, sukum trap belcom chilcom, na blood oil farm, ama rin tanara rufam, ama apri esco abaga chat bagla troze, go and serum gomes lina, am na nyoro MC da wada wada sukum pull down aj kalpe kalipso kalipso am zone wen, don't you? Don't be laugh no bi dafa baat no bi dafa baat Gambian freestyle Gambian dañ raxa rap no bi daxuma rap man damay rap di jàll di no kadi kadi dafa am question bu génn de si golo nuñ ko dee waxee <laughs> golo mm. mooy ki golo bu jigéen golo bu jigéen ah, i ka fayano ko i ko kuma de golo bu nuñ ko ooyee tey bugan nañuy xam golo bu góor ak naka lañ koy ooyee si ba e bàyyi gay waa ñu ngi ñëw indi la moo interview tey Youssa ñun suñ badi bu monkey gaal lañ ko dee waxee bu góor bi ñu ne ko monkey boy man loolu laa ko xamee de ñun suñ badi bu noonu lañ ko dee ooyee de xaw ma naka la tooñu ma noonu lañ Fatou Kiagne man trop fiyaa la badi bu ñu ngi daw ñaari jaaxa yi leen ñoom laa oo pour interview jaaxa yaa ngi daw but still am nañ boy si yéen ñi tey yéen ñëpp laa bëgg a interview yéen a ngi guula loo tur bi waaw ma ne ah tur bi man Marcos. Marcos. Yeah. Marcos Luther or oh, Marcos. Marcos Garvey. Marcos Garvey. Yeah. Marcos Garvey black. So. Yeah. Ah, uh, nga ñëw Sunday beach like. Yeah, dama ñëw Sunday beach. So lang bi ah, Comme tey nu ko gisee beach bi mu ngi ova ne sam nga. Ñu jàng ko over yeeg ngelaw bi tamit mu ngi over so am nga. May am correction nag bu important bu nga ne Gambia ñëpp tay bi ñu ko laajte. Yeah. Ah, golo naka lañ ko doon waxee Golo. Ah. Golo. man nag illiterate laa nag dégg nga. waaw golo pour na bobu ko nek mun na koo xam de. waaw golo mooy ah. léegi si xolof golo la. waaw comme soko ko waxee woon ne si English ñu né monkey female monkey and male monkey. wa ah. ak naka nga ko translate ci xolof. <laughs> golo bu góor ak golo bu jigéen. golo bu góor ak golo bu jigéen tey nag. question bi mo nek di daw golo nuñ koy waxee ci English bu ko na xam kan na mako mëna jox all right Marcos still ñaar ñu ngi ni xawma nak dal dina dinañ ñeme ci caméra wala parce que Gambien ci dañ daw ci caméra bi so naka la tour bi lil baby la tour lil baby lil baby so rasta nga wala wala ah, cegal saay rasta No. non do rasta ama ah. ah, ci ko cende ngi mun wala ko just def ni ci julli bi rek pour julli bi wacce nonu rek ah pour julli bi rek afa ko gene sax so lil baby yow la nga enjoy si beach side right now this summer summer bi ñu ngi tuga da nga fi enjoy bi ah mu ngi ni sa nga dama ñew jël air ni lek so the same question bu ma laajee nii moom laa bëgg xam golo bu góor ah. ak bu jigen naka lañ ko waxee ci english golo bu góor ni ko dee waxee english eh wana nag <laughs> loolu golo bu góor ak golo bu jigen nuñ ko waxee ci english question la so little baby thank you a ah. lot appreciate you still dinañ dem ci question bi pare ma gis na jaaxa yu tok nele ma dem fofu ma seet te naa pass mic bi kat yi ak fatkaan itam ñu wa ba jaaxa yeele bëgg naa tam ma xam ndax am na golo bu góor ak golo bu jigen mu ngàttoon caméra mu topp ma ma wax ak jaaxa yi ay ngeen de ka di daw kamera. bi jaaxi gaam e, ye ñepp ragal caméra ak seen mu a mékop nak lolo ma ci but still mo interview su nañ ko outil fi ci Sunday bit Live dara doy Namanya ñoo jox kadi ak Fat Kanji ñu ñoo def some interviews. tiye ko fa Sunday bit Live Okay. Sunday Beach live jaaxay ñu ngeen daw jaaxa bi ñamewut caméra jaaxi Gambie ñamewuñ caméra jaaxa baa ngeen daw but still Gambian Talents la di leen ko ne is your favorite host why host also known as young hustler still doing Sunday Beach live Sunday Beach live night zone is coming back this week night zone at Sukuta mu ngeen ñëw baagut freestyle zone also will be back kadi sañan kaye ni ñu wax kadi ni nga ñëw ñu wax kadi kae ni malaje la jahi gambie lu tax ñu mën a ciifu ak xelu nga né boy e gang sa ni ñu wax ni ñu wax tay mu ngi dig musique suma bir caméra bi nañu mu wax man comme mo mu ngi feel vibes Fi. mu ngi feel vibes kay mu ñu mu waxañu mu ngi neex de yaa da bitis dope boy wali fas la de How do they call a female horse in Wolof mana pas bu jigéen kadi kadi jaay gambe lu tax ñu mën a xéelu ak ciifu jaxi gambe dañ dee xéelu xéelu ak ciifu dee woon dee xamoo loo su gaay xanaa jaxi gambe da ngeen dee xéelu déggal yu sol lu mu wax dem ne dañ dañ ak lañ am ah lu tax Hanabena xanaa benn xanaa jaxam da nga gis benn jaxam bu la ciifu xaaral ma gis kenn léegi nii rek dina la same thing jahi gambe lu tañu mëna chifu but one mu fi jahi dañ lay daw caméra té ngeen ko mëna snapchat caméra su leen taxawee sen kanam ngeen daw lu da lool fi nekul comme gambe fi nekul ñëpp ñoo ñemee caméra so rek dang so gisé mic bi da nga gis caméra rek gaay dañ dé daw lool fi problème am nañ groupe jahi yu rafet caméra wu man tonal ma nga jëlal ma jahi yoyu jaa ya ngee daw ya daw caméra bi ak seen rafetaay lolo ma rafet but anyways gaa ngi daw interview so this time around um dinañ have some photo shoots they fii si Gambian Talents TV they have some photo shoots, and those photo shoots dinañ ko upload to Gambian Talents TV wanna learn Gambian Beach how does it go suma cameraman bi di nga ma wonal sama photo shoot yu ma jël tey wonal go gaay See page bi You said Canada yeah dinañ Didn't they me nii nii sax suñ mënee dem ñu dem wa amuñ ga so bañu em fi fii mun ñu folo ñi ti ben tay te di ngol han al al sabula no mol no male al be bi ni mi lafta kan na boroje ni yu sey bor al bula ngol no ngol dor ani fat kañi wala <laughs> marathon la zuma no camera bi fele fele lay ñu dem fele ci jaha yi ni so leen taw ñu wane ne jaha ya nge daw so leen taw ñu wane ne jaha ya nge taxaw jaaxi gam yooyu yéen lu la nge de daw tam kan yo wayo Kimeo, bohong mana? Kimeo. Tangan tu. Kimeo jangan. Jahayangin tu. Ini kan sangat. Jahayangin depan wide wide, but still nyamai unyu wasi televi. Lolo majah. Rafetai yep yep yep yep. Nyungi ragal. But still freestyle zone di na new, night zone di na new. Semester Avenue di na new. Gambian Talents TV. Rek, temu bedoy. Ragan alen di na kawa. so many shows yaa ngi ñëw physical being Gambian TV di leen holiday you them still at Sunday Beach live. bi Gambian Talents la ah, TV waaw dem on Facebook wala YouTube nga seet ko foofu noonu anti yaa ngi nice ma ay na jërëjëf si bij bi tey dama ñoo doxantu ah. because dama de liggéey fii nii ah, ki ngaan queen so ma doxantu si si bij bi ak suma xarit so every Sunday dang fi dee ñëw waaw su ma ñëwee liggéey rek dama dee ñoo doxantu si dama mun solu dama ko la ko dee def mun ko dee yaaxal fen am nga son noonu bul xuloo moom bul waxaa dara loo am defal ko nii rek so man fii laa ko dee tibi aw ma dara waaye lii ma dee def dem baax loolu la waaye ah lan nga di enjoy si bij bi lu ngay like te enjoy lu bari bi ko sanga ndox bi dafa baax pour nga nekk si ndox bi ko soo amee stress nga ñëw fii daf dee bàyyi dee bàyyi bij yi yu bij yi sene pokoloko yële ban moo daax fii daal pokoloko moo daxa waaw waaw fii moo daxa bu baax a ah, baax fii di am ay lekk yu ngeen dee jënd nga dee gën bëgg man pizza moom dama ko laaj pour boobu moom pour suma ya, rek ah, loolu la kay ah. thank you yaa ngi ne Sunday life lañ nekk still ñu ngi am yéen a booy fii xam nga cëppee dañ doon booy ñoo order mic bi jaaxee dañ doon daw mic daw mic bi laa bëgg a xam ñeme wuñ caméra man maa ko su leen naxaree rek comment li jaaxee ñeme wuñ caméra te lan la ñuy ragal si caméra bi pour pourtant lii ñoo ko moom rek ñun ñoo koy gisaat rek man maa ngi tudd Mame Sène

nu ma wax la ko si arab golo bu góor baabun kana daf ka teeteen boo boo baaxut baabun bi léegi ban mooy jigéen ak ban mooy góor baa waaye jigéen wala bun bay góor non déedéet baabun rajul ar rajulu baabun rajulu mooy bu góor baabun nisaay golo bu jigéen yéen a ko dégg si arab niñ koy waxee hmm. bu english bi léegi uti di Gambian Talents TV jërë Jeff. jëf ñu dem si am na keneen ku fi nekk borom bi kay fi ñu arab la dégg ñun ñun ñëpp Sénégal arab rek la dégg waaw dégg na olof bi waaw est-ce que mën naa la laaj benn question ma ne mburu France naka leen koy waxee si sleeping bread korka mu ne sleeping bread korka ah. korka mu ne sleeping bread ala mu ne ne bread that sleep till wake up ma laaj la ay question si loo xam two thousand million dollars ah. ak nga bàyyi sa cefe bi boo two thousand million dollars ah. chaque jour ma ah. bàyyi suma cefe a cefe lañ wax du jabar dama ko den takk rek ma bi jël jabar bi nga nga bàyyi ko nga ma takk ko def ko jabar waaw léegi suñu waxoon chaque jour two thousand million dollars ak nga bàyyi ak yàlla boo jël nga bàyyi si kii benn ma two thousand million ma jël fu ma jël ak ma ત્યારે જો 2000 મિલિયો હોલા ઓકે જોડો તું મામ સેટ ñëwul મામ સેટ man sëñ Fallou laa tudd sëñ Fallou waaw sëñ yow golo bu góor ak golo bu jigéen niñ koy woowee si English golo bu góor ak golo bu jigéen Peblais ah Peblais Peblais waaw golo bu ak golo bu jigéen Peblais waaw boo gisee waa ne e Peblais bu dem waaw soo maam seet kii correction dafa garaaw de ah kii moom la de doxee wala lan kan ke? Hmm. non doxewul yooyu so yo lo ñëw ñëw si bij bi ni tey non man dama ñëw pour jël air jël ngelaw doxantu ndànk-ndànk ama gën a Gambie ak bu Sénégal bu daax non bu Gambie moo daax moo daax Gambie moo daax a bij jërëjëf maam Seck Gambie daax a bij tey ok boy bi mu ne dafa amaat question bu moo laajte waaw xam nga la laa nekk di laajte benn benn question laa nekk di laajte because jigéen ñi ñoom dañ la dee gis nga la dee xool ñaar mën nga ñee ànd nekk di def lu nekk waaye moom mun loon nopp ah waaye du la ko ñeme wax man question boobu laay laajte lan moo tax jigéen bi su doon nobee du la ko nangoo wax. questions of the day. waaw Ndiaye boo leen nobee ngeen képp ko di laaw. waaw di ko jéem a misère seen commune bi. kadi kay tontu question bi nii kadi mu ngi fi kadi ak fan. dinañ tontu question bi tey kadi kay tontu question bi ma abal ak caméra bi ndànk kay ni nga tontu lu tax jigéen su nobee góor du ko doyee wax. du ko doyee wax. parce que su ko waxee. waaw soo leen amee koy wax. waaye déedéet du loolu ah, léegi léegi góor bi nag. non xam nga dafay am kerse boobu pour tax jàkkaarloo góor sa wax ko na dam la nopp kon góor na mun ngay dem nga ne jigéen nopp naal nga ut ko yóbbu ko sa kër kon jigéen su defee lool yéen góor yi xam naa leen da nga xam man keesu ma la yaa ma kees nga ne da nga ma xam nga man dama dee gis yira dama dee gis jigéen boo xam ne leer na ma ni man daf ma nopp ah waaye du ma ko nangoo waaye man xam naa ne daf ma nopp de waaye comme maanaam damay népp di ko xoolaan ma dem ba si kanam xool ba xam moom naka lay ba xam bis dina ñëw mu wax ma ko wala du ma ko wax taman man su ma ko ko waxee daf may wax na ma déedéet man loolu moo ma day jaaxal ba léegi te moom leer na ko yow da ko nopp. Ah, yow a yow legi yow lu nga nekk di wax da nga gis ku la nopp waaye léegi wax ko na nag. non because man ñi ma nopp bëri neen xam naa sama bopp because man jaaxal yu ma dee ànd man ñëpp ma nopp. jaaxi Gambia dégg ngeen kii lu mu wax léegi ku nga xam ne yow legi nga ko léegi wax ko benn yoon rek feebar boobu moo ko téye nii feebar boobu moo ko téye de. dama ko téye dafay wax na ma déedéet du ma nangu euh, nee na moom du nangu léegi nag question boobu laay laajte léegi man ku ma si nopp na ñëw ba si man nga ne man dama la nopp waaw bul nekk di ma ko xoolee bët il faut ma nekk di ma xool naam ay ja ah, góor bi dafa naaj góor bi dafa def lii te nangu ko wax na ko dama la nopp boo baaxul dégg nga naa. gis nga nii waa léegi yow koo nopp léegi wax ko. non ku ma ku ma nopp moom tur bi moom dëgg tur bi moom mënu ma ko wax. secret la boobu moom xam naa danga ma koy baar rek xam naa loolu moo gën a yomba. waaw baax na jërëjëf. moom ku ñëw mën na laa accepté mën naa jël ñëpp. man loo ñaaw ñaaw rek booy man maa cool soo ñëwee na ma dama la nob rek maa ngi cool. comme tan baɗi ngalali yamoye ñaami a ko munatna sunkutol ni e kewo kanu e buka loya fo kewoye kon ne kanule kamalu kafo baɗum muso sallafi kewoye lo kafo musoye kon ne kanule mbaɗi ngalali yamoen banti a jaabi kuma kawmi nen kaye ko ni musolo ta ko kewoye ne kanule kewo kana fayna kon temi e ñini itele nata ni problem o keta bula ngol noma biyo bijo kan abiyele ka foja abiyele ka moy ala baraka ba ok still ñu ngi ni fi si Sunday Beach Live boy lang rap eh man bi la wem bo buga buga yeah Let me see you de buga Lo, lo, lo, lo, let me see. Oh, lo, lo, lo, buga Let me, buga Let me see you de buga Bella. Ah, Bella. Oh. better. Go get a mola. Wake up. Don't sleep. Wake up. Kiba, collect your money, collect your money. Please, wake up. Chiba, collect your money, collect your money. Please, wake up. Wake up. Everybody is up right now. Right. This is the Sunday Beach. No to that. Modu. Modu tey am um, nga ñëw fii um Sunday si beach bi loolu waral Yeah, dama ñëw fii xalu rek. Yes, yeah. liggéey Monday we Friday yooyu ya xam nga weekend bi nga ñëw fii xaalu tuuti xam nga. ok soo enjoy si bij eh, bi. ya, bi xam nga. ya, eh, bi amul amul benn chemical amul dara fresh one bi xam nga. so it's very good. si ya, sa help, yeah. Ya. ok so so ñëwee fii da nga di am lekka yu nga di jënd lekka nga enjoy xam nga wala da di ñëw nga train rek xam nga. yeah dama dee train sometimes ma ñëw ma jënd man fruits laa dee bëgg nag. yeah day train dawantu nii xam lewa lek ma janda fruit lewa lek ma train ma sangu rek ma lo sangu no man daal palma mooy suma bij daal yeah because foofu la nit yi dee bëri xam nga kan. foofu laa dee enjoy daal yeah waaye oh. ya, tey moom dama ñëw doxantu nii rek oh, yeah ma ñëw change environment xam nga mun naa laajte dara ya. um, golo golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko dee ooyee si English Uh, well, go mom. <laughs> Eh, monkey woman. and monkey. Mo, mo, ngene gola bu jigen ak gola bu gor. Ah, well, monkey. Okay, monkey. Uh, oh, let's say monkey man and monkey woman. Of course, yes. <laughs> okay, thank you. Thank you so much. I'm fine. it Matthew. Matthew, why are you here today in this one? Anyway, the sun is really nice. You know, this is summertime. We are here to have fun. You know, Gambia is really nice. Gambia is a smiling coast, of course. I love Gambia so much. Gambia is my second country in Africa, if I in the whole world. Okay, how long have you been here? Nah, I'm be uh, right now. I'm spending like a one year here, but I always used to come and go back, you know. Anyway, I'm a businessman in Gambia. Gambia is my second home, like I said, told you, you know. I'm so, I really love Gambia. So what, what do you like about the beach? The beach is really nice. The people, they are really nice in the country, you know. I really love the beach anyway. That's the only thing because it's summertime, you know, Africa is the best country. You know, everybody, if you are looking at me, come on. Everywhere you are in the world, you have to come back to Africa. Africa is the best where you can really have a fun, you know, especially Gambia. Gambia, the smelly coast. I love Gambia, man. Yeah, the Senegal. Hey, love Thank you so much. <laughs> Thank you. So, what um food do you like? Huh, my best food, I think, is what belechi. Yeah, belechi. Uh, Can you cook it? <laughs> no, I don't know how to cook it, but I have a friend of mine. He really know how to prepare it, you know. And I think the last time they gave me a food uh, ba- baha, Yeah. Oh my God. baha too is a very nice food, you know. I love baha so much. Okay. And Gambia is really nice anyway. I'm telling you what, I'm a Sierra Leonean, but you know, Sierra Leone and the Gambia, we are brother and sister. So I really love Gambia so much. Here is my second country. No, no dispute about it anyway. Okay, one more question. Um, how do we call a female monkey and a male monkey? Name? Female monkey and a male monkey. Yes. <laughs> okay, female monkey and a male monkey. Yeah. My my sister actually, all monkey is this monkey is monkey. You understand? So I'm not a doctor anyway. I don't know how to this I don't know how to call those people, but monkey is a monkey. Monkey is a monkey. A monkey is a monkey. monkey. Two different I, <laughs> ah, I don't know the difference. I don't want to lie. <laughs> okay, thank you. All right, thank you. <laughs> you want to talk? What? tur bi ba man joo joo ma fekk la si bij bi yaa ngi toog nag have no partner, you know. Wow. Assalamu alaikum. Malaikum salam. di mana? Jo. Jo nata ne tara sirim bi jota jang ina ta mina laja? Anna daga time ole fa jang dorong. For every eh, Sunday like kan ajang fo? No no no sometimes. Sometimes if I have free time, you know, I always come around, you know, take a brief, you know. Yeah. Nata badala jay kamina fongo enjoy jang ba ya. yeah, Nka Julie enjoy, you know, the movement of people, you know, around, you know. Yeah, Ngole enjoy, you know. Nibe siri njana jebe siri famwati ye nyati limba fonyola. Yeah, man, that's why I'm here, man, just to take a nice breath, you know, and have my smoke, you know, and feeling vibes, yeah. Na yeye mnasoto mimi beju be kankabona Gambian Talents TV. <laughs> yeah, you're making me laugh, man, you know. Yeah, they're nice, nice guys, you know. I really appreciate, you know. Yeah, appreciate them, you know. Yeah. Thank you. Yeah, you're welcome, man. And your name? Kadi from Gambian Talents TV. Okay, nice to meet you guys, you know. You're welcome. Yeah, man. Big up to yourself. Thank you. Sunday Beach life still mine. Fii you, ma ñëw ak beneen brother lañ you am Ah, moom Paul la dégg ah, olof bi tam daf koo traité dañoo njëkk a dem si olof bi mu doon noo tudd. man Souleymane. Souleymane. waaw Souleymane foo jógee. enjoy tuuti free suma mind daal. bij bi lépp nice man every day suma ñëwee bij dama suma bopp just ama. Souleymane dégg nga Paul right. Paul waaw dama traité am bu ma am. golo bu jigéen naka lañ ko waxee si Paul. naga. golo bu góor ak golo golo bu góor ak golo bu jigéen si pël waaw yow yaa ngi de. bu jigéen monki monki waaw waaw bu ak bu góor la waaw. waaye xam dafa am différence tamit. waaw ma jël sama bos. dañ dee naan kerooru. gorko e kerooru debbo kerooru gorko kerooru debbo mooy golo bu góor ak golo bu jigéen wala nga ne comme waandu gorko ak waandu debbo ina ngi dégg waandu gorko waandu debbo moom la ñuy ne golo bu góor bu jigéen still di la ne Gambia Talents TV la ne thank you for the interview Sunday Beach Live we still going Okay, still Gambia Talents TV lañ neka, Ah, okay, another bro lañ am fi. Bro, noo tudd? Man Musa. Musa. Musa Silla. Musa foo jógee? Man maay jógee all Yundum. Old Yundum. So yo ban bit nga dee gën a enjoy si Gambia? ah boy man suma génn bi bariwul daal waaye tey laa ma jégjég rek toog rek man xaaral ma génn ñëw injon tuuti nag bi ko sondam doo dee xam nag ba baax nag nga génn nga ñëw dallu tuuti nga nga am sa booba. Musa dafa ñu enjoy bij bi xam nga hall xool bi Musa ah ban ka nga dégg nga dégg man national Sarawule la nak Musa léegi Sarawule nak lañ di waxe golo bu ak golo bu jigen golo bu ak golo bu jigen so ah, golo mom kay olof mo, dama ko dey try way lu nga nekk di wax ne real real understand. Sarawule bi lañ dégg <laughs> golo bu ak golo bu jigen dégg nañ bu pool bi. bu saraxule bi bëgg nañ ko dégg kat yi joxe na bu sawse bi léegi saraxule bu njaago bi yooyu yëpp lañ bëgg a dégg ñu xam waa saraxule moom kay still comme soo ko soo ma coxsan si saraxule waaye soo waxee olof mi moom xam olof mi moom yeneen laka boo xamante ne really understand oma ko all Musa thank you very much di leen ne Gambia la Sunday Beach la man mi sa

naa suma ne ah, ok still ñu ngi si Sunday Beach live fii si Senegambia ñeneen ñi jox ko different tour parce que picc yi dañ bëri biir Gambia but still am nañ jaaxa bu rafet bu fi toog jaayi Gambia ñu ne dañ nice cafe Gambia dañ nice but still am nañ fault man naa ko wax si kanam fan la seen fault bi nekkee ab question bu ma leen amal noo tudda a ah, maay tudda Rose maay Rose Sambu Rus ki moy mari Rus Rus Rus mo fo len ko dégg rek mari mo si tega so Rus yo. may joge lamen Daranka. Daranka so yo ban picc nga legina enjoy si Gambia. man mm, mostly fi la de gawa ñona na because place bi dafa open be pare dafa free dag de muna am gelo bu ne because I like the lifestyle bi fi dafa ma toro. ok Rose Till ñu si Gambian talent TV Digo na gars yi some beautiful photoshoots yung amne xam ne upload. And Rose dinga nga soxla ñu jël la in the photo shoots yu ñu bugg def tey si page bi uh, with the Sunday Beach Life. yeah. so Rose am na question bu ma am ñu ne golo bu góor ak golo bu jigéen nuñ ko owee si English. si English ah man de boobu soriwuma si de. Rose tam mu ne golo bu góor ak golo bu English jigéen si English soriwu si question bi nag ba léegi mënuma am ko ko answer maybe Adama Barrow moo ko answer o but still amen benen jaha dama move nonu wakta nak mom e mo move ni ma round ko fi mom heri danu la si bañ te danu ndol yombut ma ñewé ni jaha notu sa sam la danu ba tanka be har man fatou cissé fatou cissé fatou yo fo jogi lancaster na tati lancaster lancaster banjul ne jahi banjuli nak day uh, rafet day jonge wa dina ko xam tey Fatou mun nga ko caméra bi nele nga ton touti ngay e mun la gis mun am ne ki moy e Fatou Cissé jahi Banjul ci fee Banjul nak rafet lañ def wa dañ dangam tam te de de bañ legi hmm. Fatou ana coupe ja boy bu jogé wa mun ne luta jahi gambé dañ den mom nit ñu e bañ ko wax lolu de amut ah, boy bi de mun ne mom jaaxee dañ ko deen nopp ba ñu ragala wax luta lolu moom moo leen buga mo moo leen buga leer na ne loolu man moom bàyyi naa xel na jaaxi game day ak xelu lu tax loolu nga mën a ciifu ak helu de du du ñëpp de som la som la ok fatu loolu la wax still si Gambia Talents TV di leen Sunday Beach live la ànd ak Kadi Sanyang ak fatu keta hansa mbadi ngol kam tan na faale nyaari mi felenti ngale badala ja mane kay leen ñu ñëw andi amas kan mooy jël foos kay leen daw boy kay leen daw maa leen daw kay leen ah, andi amas rek moo fi nekk kay daw waaw man a yow maa la daa daw yow suma budee ko yow doo ma boy bàyyi loolu waay du caaxaan bi lay wallaay soo ko ootee léegi léegi ma simee ko ñu am ko mm. fii ko waa kon xaaral baa bàyyi yow nga kon. non kii moom dégg nga naa dawaa yow moom mën naa yow suñu daw moom. waaw xoolal fii ñi ñu laa xool parce que ñit yi dañoo foog parce que nu nga toonee nii. mën naa yow lu ñu wax nii fi de. Ah. man pour man mic bi rek nga ma tiim nii fooy. <laughs> mic rek. maanaam ah, yow suñu daw bi nga bëgg a siiwal nii ana aduna bi yëpp yëg ne dama war a daw. Ah, xam nga ne dama la war a bàyyi si gannaaw moo tax pour ragal. kii moom suñu daw spécial laa bëgg a mu nekk waa dëgg bi yëg ko bayal moom rek ñu a seeni boy waaye ñu ngi maa ooyee gileen nag gileen ma tasaayoo bij bi tay sonné eh, fi xana every Sunday nga dee ñëw bij bi mom la every Sunday mom dama dé doxantu ci ñëw enjoy sama boppa ndax am dëkk bi daf dé tanga wa yaa ma gën xam fokk ñu ñëw stroll enjoy suñ boppa daal loo dé enjoy ci bij bi jàkkaarloo la nga wax le loolu so ñëw ci bij bi lan nga fa dé gina enjoy ah duma la fénal dé ngalo bi rek la fi dee enjoy nag balaa ma dug <laughs> ngalo bi rek la fi dé enjoy man mom ngelaw ba ma dé ini nak ho ma ñeneen nak waye man mom ngelaw ma ma dé ini léegi nag. waaw léegi moom dëgg su ma doon dox mu ma fekk si biir bij bi moom dafa doon lu ma gënal torop nag. léegi yow golo bu jigéen naka lañ ko dee waxee si English ag golo bu góor. hee ma sista. bilaay buñ aaga foofu. bay leen bay leen rek ma. ah Fatou ne mool ñin ka ñu questionné ka borle malo minen problème ode ah, jagalo wara ifana ya jibe rek sai da yo ba sulo kewo sulo musa muso k'a fɔ ɲani an tolla bari bude ke be kuma ni la sulo k'a fɔ na sulo aman do wala no mol ko bori e ni ko ma wala sulo kewo ta fone i bal ne ba i ba fa tol dino la sulo musa ta to dino la e ya yi sulo in pexo ka mol jomalen la wala problem wala se ite be ite ba ite ba to fole ɲadi le atal lo ko mo jay k'a fɔ ɲadi bayan ta boto badi bule ay mambo badi mo badi ay ta mambo badi bu ite no badi bu ko bu mulu ne mana mulu ite no ko mulu <laughs> idan ni komo kol mul yada foy maje foy maje te pare nyame no no no ndabo de bari yan tol ni mbo de bari ngas jindi tan e maje <laughs> e jindi tan hani mi yente je salon mbo nan bule wala nan man seno han say mbijam bari be diyari ne da na ba dala be diyari na mul finti tan a nyama ñu mhm. ma jo di bi bu ma nekk ci laka a laka laka bu ma but still ah, dañuy close on debit live Uh, we appreciate you all. As you all see, kadi takatol nga ñëw kañi mu takato ñu ñëw en Sunday Beach live yéen lay déglu léegi. Yusufa man bëgguma yee ñibbi de man fi mu ne man bëgguma yee ñibbi Yusufa man bëgguma yee ñibbi. dima yóbbu by force marriage. Yes, ñun bëggu ñoo ñibbi. comme bëggu leen di ñibbi. Continue Sunday with life is still going on. Ben de yow nga fi fresh air bu fi nekk yow da nga ñu bëgg a delloo si tàngaay. interview sa ñuy uti man dafa am mission yu ma war ron sa si bij bi balaa maa dem. but still Sunday with life. kii abra mi oru de lu ma dox fi. Yusuf wax ñu dara. si interview laa nekk dafa am mission yu ma ron rek. ba yow man cop cop bi laa gisul. off the camera. kamu dambaɗi ngol na faali e ñaamin contante pour kaf na baadale jang nimbaani gambenol e kacasoɗo e dimaso e kaka keñamin ɗale ñum mbaɗala kadi yaale silbert la tuda silbert te si bij bi fi hana efir sonde ngare yo non nekut efir sonde waaye comme léego léegi dama de mën a doxantu ni comme nga ñëw firi sa mind yeah because saa yu nekk yaa ngi biisi ak yu mel ni foog nga am bés boo xam ne da ngaa nga am ngelaw bi because ngelaw bi ne bi yëpp de amee so xam nga ba pare da mën a gis fii tamit ñoo xam ne waaw mooy loolu ñoom tamit ñëw nañoo pour am di same time boo ñëw pour am tamit yaa ngi gis noonu la. léegi yow soo ñëwee fii da ngay toog rek jàkkaarloo géej bi soo jàkkaarloo géej bi xanaa sama yéen bi daf dee free. why not sama yéen dafa free sama yéen dafa free because lii nature la daal lii dafa nekk loo xam ne natural la lii doo ko am fenn yaa ngi gis pare yaay toog fii yaa ngi gis tamit am na ñoo xam ne ñu ngi fii. xëj na di nga gis ñeneen ñu ngay play football ñu ngay def yeneen yoo xam ne comme xëj na yow di nga laay game yooyu noonu ba pare di nga gis ñoo xam ne waaw mooy loolu ba pare boo ko sa àndese ak booy soo leen ñëwee toog di waxtaan yéen doxantu nii xam nga dara gënul loolu daal. soo yow mun daw. man defe naa ku nekk mun na daw xëj na doo gaaw de waaye mun ngaa daw moom. man dama bëgg a daawaa suma caméraman am na lu mu lu duuf las soo. ndax ku gagné mooy jël loolu. pa rin. Eh, yow iya kan? yow kay yow ma daa daw de. ah ragal caabi oto la teg. non man de munuma oto nag su ma waree gañe loolu naka laa ñibbi oto bi. da nga koy yóbbu. naka laa koy da nga koy yóbbu sa kër. munuma dawal. waa léegi am na lu ma golo golo golo bu jigéen ak golo bu góor naka lañ ko di wax si anglais. golo moom golo la. Ah. waaw. amul beneen tur golo moom golo la. monkey monkey la. Hmm. ah monkey monkey la mom jërëjëf kan dan jërëjëf ya ba. pro tour. maa ngi tudd Keba Cissé. Keba loo ñëw ut bi right now ni dama ah, ñëw free sama mind rek sama mind bi ya ah, nga xam nga dama desi maa def exam so dama ñëw free sama mind bi xam nga. léegi yo yow every time sama mind bi sama mind bi relax teel nga dee ñëw si bi ndax. waaye eh, loolu la because xam nga sometimes fu nga toog si bi nii nga loolu di rey ne nga free sama mind bi angga nga stress mun dem. yeah sa stress bi dem. yeah am na léegi moom ngeen dem naka naka xam nga balaa maa ay kër sax xam nga lii dafa dafa bàyyi sax. am na lu ma la bëgg a jigéen naka lañ ko doon waxee si English ak golo bu góor. golo bu lan. jigéen ak golo bu góor naka lañ ko doon waxee si English. bu jigéen. bu jigéen eh boobu maa amoo ko nag dëgg bu góor bi nag. male female female monkey and and man. ah loolu laa de female monkey and male monkey. eh Gambia fii moo ne. ah man laa ko di dëgg dëgg moom. noonu laa ko xamee si wolof. si wolof ah golo bu jigéen ah fangal ah, moom nga ñu def. ñu daan aca ñëwal. maa la daa daw de. man dama yaakaar caabi moto <laughs> nga ñu daw. waaja. baal naa la next time. ah bro yow naka ak sa bluetooth speaker bi ñëwal nag bul daw nag ah bul daw ñi nga fi de yu so nag daf dee wax ne jaaxay ñoo dee daw caméra kon boy si tam den dee daw caméra ñi nga borom bluetooth speaker maa ngi bëgg a wax ak moom mu daw gaa amu fi jërëjëf si yow ah dentee ñu ngi si bij bi rek di waxtaan ak boy si ak jaaxay bij bi nag mu ngi neex nag fresh air moo nekk di ñëw yu so mun a ñibbi ñibbi kon man bëgguma ñibbi fan mata sabari mu ngi ne tanga ker bangi tanga ndesendi la badibu sa yuso ka la lawa ngo yuso wata keno la tan dol sendi la re so ko na kandiri nyaami nyim bada la fresh e abidjan no fan mata dum lolu pe lolu yi nag balaa ñu may romb ma laajte leen nag buro naka yéen a ngi nice de lii yëpp Sunday Beach sama caméraman bi tur bu baax bi nag man Ibrahima Ibrahima teeloo ñëw ut si bij bi daal ah xam nga dañ nekk si tàngoor so foog ñu am time pour free up yaram bi xam nga ak ah, week bi yeah refreshment te dañ job weekend bi week bi yëpp so weekend bi dañ am pour chill so bro yow ya, tam ngay jaxaroo ak caméra bi tuuti yow tam moom na waxtaanaa ya. yow bul daw de parewumaa yow ñëwal jaakaarloo la caméraman bi so léegi free daal ba nga ñëw yaa free na ndax am change environment gis naa lu bëri loo xamante ne gis moo ko woon si biir kër so ana lekka yi nag mbaa yow lekkuloo yëpp yaa lekka neen fële léegi dañ nekk di ñëw pour doxantu ni bala ñoo ñibbi rek xam nga yow lu ma la bëgg laajte tuuti rek naka leen di waxee golo bu jigéen si english waaw est-ce que ne ko female monkey <laughs> female monkey waa jërëjëf xaaral ma laajte kii moom bi man Yahya Aidara <laughs> tey dama tasaayoo si bij bi nag naka la maa ngi street am nga fa dee demee def suñu refreshment dox am nga pour wàccee lu ñu lekk ñu am fresh air bi xam nga boo dee vitamine mooy loolu noppale ko a nga tey sondee la so pour doxantu def refreshment pour yaram bi noppale ko because week bi la so Sunday you have to relax nga mooy loolu am life noonu naka la ne waxee moom ki bu jigéen su monki bu jigéen monki yaa ma na dégg <laughs> monki naka lañ ko dee waxee <laughs> non man still get ma understand walo negri o understand la waa léegi ma ñu daw ñu daw ah soo pare rek waaw ah. ah. pare nga léegi naka nga bëggee ñu demee nii ndax nii ah, yow yaa seet fu la rek soo bëggee nii soo bëggee ñu demee nii ma caméraman caabi oto la teg bilaay naka di caabi moto soo ma royee ñu jox la caabi kon de naa ko ba pare. ñu daw mais naa la fii si kanam tuuti rek daal. ñu dem jiital ma maa leen ñu dem. jërëjëf ay ba thanks. ay bro maa ngi cool. tur bu baax. sidaad la. Sidaat ma tasa yow yaa ngi doxantu si bij bi lan moo ko waral. ah dama ñëw jël taab rek jël tuuti ngelaw rek xam nga ñun célibataire yi tey moom kay suñ toogee si kër yi te amuñ dara boobu leneen la si ñun so foog ñu ñew si beach side bi ñu am dara ngelew bi xaw ñu laal tuuti ñu feel something suñu yaram sax ya nga nakalé no kon dafa melni salvateur yi ñoo mom beach bi daal ah bi mom salvateur yi ñoko mom di parce que borom jabar yi dañ nekk di uuf sen jabar yi sen biir kër rek xam nga do dee understand ñun salvateur yi foog ñu ñew ñu tamambalu am dara wala ah léegi naka lañ ne waxee kom monki comme golo bu jigen ak golo bu gor naka ko dee waxee ci angale wa lolu moom ngay ci yow la dess rek ha nga ñun mom jaaguñ nonu ñun mu kay luñ luñ si rek mooy golo rek. yow léegi yow loo jàngal. <laughs> non jërëjëf waxoon la loolu loolu amul problème. Eh, kon wax arab su fekkee jàng nga arab. non loolu tey mënu ma nag. Chinese man kay moom ah, daa wax la olof rek. India. India lakal bees. boobu toj na yaa lañ ko dégg lakal baas. <laughs> kamuta mbaɗigol kuuɗima ko a sibanna caméraman wako wato wantale mbaɗanna lejande fo dimas naala dimas o dimas alkala ɓulagol noon mi naala lejande bijota jang e birsonde bij kanalie jang na caméraman o mba contana yusufa ba farmate mine sote bafla ɓayantaman pareke se yusufa konna sey no ñum bijoto ɓe ɗiyari ñami foño ɗimaɓe fiika ala barka baace juuɓer lawe ɗawaɗa mbal contana baace ya kom kadi yafo ñamen temo abantale fereng bar next sonde inshallah ma burna lel jam jenne kana bada to jamba o ngafale ñam afrika mun dulati especially gambia dulana damte yalon ko adiyata bakela mol kana nan bijoto le ka pindi ni mol ka kacha hamga bar mari la yusofa nan na anana kacha yusfa nana ni sonde bit live as you all watch the beautiful entertainment bu in leen last Sunday Definitely for ko foofu ah, this Sunday ñu indi leen and si Gambia with my two guests tey Kadi Sanyang ak Fatou Kanyi man favorite host Yusufa, Bah also known as Y host you can check on the Sunday Beat Live every Sunday di leen in the fii Gambia Talents TV da are in ngeen Jeff toog and set and more. duma dem tey te gërëm ma kooku di Pa Ousmane Juf anti Samba di girem ko gërëm ah, gërëm di